asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci biir l'évidence TV tey nag jeudi yemoon ko 4 juillet 2024 ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission bët set seen premier rendez d'information comme ni ma leen ko waxee seen dose d'information chaque jour bu 9h30 jotee lañ leen koy indil ci biir émission bët set xam ngeen ni nag plateau bi duma ci weet benn yoon dama ci ànd ak à chaque fois samay chroniqueur tey nag damay tourner jàkkaarloog doyen doyen ñu ngi nuyu. waaw soxna Rama Salih madame Diak. tur neex na de boobu ñu ba pare nuyu Ibrahima Faye mi ma jàkkaarloo nuyu mbokku internet yëpp ñu nga xam ne ñoo safoo Evidence TV. merci beaucoup euh, doyen Ibrahima noo def nuyu naa la. fay naa la madame Diak euh, ramatulaay maa ngi lay nuyu bu baax ci suba gi di nuyu doyen aussi euh, bu baax a baax. di suba teel bi di nuyu mbokk internet yu ñuy seetaan aussi ñu ngi leen di nuyu di nuyu ñuy yeewoo si këru évidence yëpp di leen wax ñu dal ak jàmm émission voilà dalee nag jàmm ci biir émission bët set comme ni ko Ibrahima waxee xam ngeen ne nag laata ñuy door euh, émission bi dañuy dem euh, directement jëli li nga xam ne moom moo gën a fës ci yëglekaay nekk laa revue des titres di ci ànd ak Ibrahima Faye léegi léegi lay doon ginnaaw bu jingal bi daanoo. ca Ramatoulaye ñu daal di rek door li gën a fës ci yéenekaay yi ñu doore ko ak journalu l'évidence quotidien ah, bi nga xam ne rek dafa xëy ak changement yi nga xamante ne ni nemmeeku nañ ko niki démb ah, tukkeeti fële ca présidence le changement s'accélère la ko journalu l'évidence daal di dippe nouveau PCA bu APIX tamit Lassana ah, Gagny Sakho enfin récompensé noonu la ko journalu l'évidence daal di xamle gannaaw loolu itam gis nañ kii di Momar Sow Malaw rek ma ngay def ay plébiscite jëmale ko ci euh, Mansour fay loolu journalu L'Évidence def na ci ab xët bu yaatoo yaatu direct news la ñuy daal di ubbi reprise de la gestion de l'AIBD euh, par l'État euh, et son transfert vers l'AIBD SA le journalu direct news daal di xëy fësal les travailleurs de la de l'AS SA rétablissent la vérité mu mel ni nag ñii di direct news daal dina def tamit ab xët bu yaatoo yaatu euh, ci euh, lu ni mel ñu ubbi l'observateur mi dikk ci euh, les cent jours du régime jomaay sans débat la ko daal di dàkkantale gannaaw ba nga xamee ni projet bii di projet Pastef gannaaw ba ñu nekkee njiitum réewu Sénégal ba tey ji rek toll rek ci téeméeri fan loolu journalu l'observateur dal dina cay def xët bu yaatu enquête la ñuy ubbi décès de l'homme d'affaires Baba jaw le journalu enquête daal di xëyee mu ne l'industrie perd mu mel ni nag kii di Baba jaw ku ñu ràññee woon la jëm ci secteur bii di secteuru pétrole gannaaw ni ki démb nag ñu nemmeeku ne dafa dal di wuy ji yàlla suñu borom le quotidien e ci la des ba tey ci boobu boobule génnuk àdduna kii di fondateuru ITOC ñu koy wax baaba Diaw le quotidien daal di ko rek xamle baaba caaw gannaaw ba nga xamee ni dal di dina rek génn àdduna ni ki démb moom nag journal bi def na parcours bu am solo ci pionnier bi nga xamante ni rek ràññee nañ ko lool ci wàllum hydrocarbures Walf Quotidien bras de fer l'Assemblée nationale le désert la ko daal di tuddee moom Walf Quotidien daal dina itam àddu ci dese Baba Diaw itok mi nga xamante ne nii rek ku ñu ràññee woon la comme ni ko journalu l'Observateur xamle euh, jëmale ko ci wàllum euh, pétrole Vox populaire mu ne pour éviter au Sénégal une crise institutionnelle ñi di député wàllu yi nag daal nañu rek déposer ab proposition de loi ngir daal di euh, dakkal lool nga xam ne rek askanu Sénégal ñu nga cee am ci tàngi mu di ab crise institutionnelle boo xam ne rek mën na ko jur waral ñu daal di ca ràññee yenn ci ay député muy Nafisatou Diallo Ibrahima Diop ak Serigne Abo Mbacke ñoom ñi ñëpp nag daal di nañu rek jug. takku ngir fas yéene amal lii di ab proposition de loi ci assemblée nationale ngir ñu mën a daal di eh, waxtaanee la nga xamante ne ni fi mu ne toll nii moom la askanu Sénégal eh, di am ab njàkkare bés bi jour retour de la eh, Sonadis la ko daal la daal di xëyee mu ne l'heure est aux lueurs mu mel ni nag fi mu toll nii lii di secteur sona Sonadis ba nga xam ne rek bañ koy dégg ci Sénégal ak tey ji dal di na rek naax saay kenn déggatu ko mu mel ni ñi nga xam ne rek ñoom ñooy gouvernement yu bees yi lañu bëgg. moo di daal di delloo ci société nationale bi jëm ci wàllum distribution une arme contre les spectaculaires loolu nag journal bi daal dina ci def xët bu yaatoo yaatu ñu daal di ubbi les échos plainte auprès du procureur de la république gaañi saaxoo traîne Euh, en justice kii di aadama Gaye gannaaw poste bu aadama Gaye daal di amal rek kii di gaañi Sakho daal di koy porter plainte jëmale ko ci wàllum diffamation injure euh, publique euh, loolu nag journal Les Échos daal na ca addu bu baax a baax Imbroglio politique à l'Assemblée la L'As quotidien daal di xëyee le PDS sauve les meubles mu mel ni nag député PDS yi ñoom daal di nañuy tàkku rek ngir daal di sauver euh, crise institutionnelle ba ñuy waxtaane saa su nekk jëmale ko fële ca assemblée nationale mu mel ni nag fas yéene nañoo amal proposition de loi euh, jëmale ko ca assemblée euh, jëmale ko président de la république ngir mën a daal di saafara loolee nga xam ne rek moo tere kii di Ousmane Sonko mu def ab déclaration de politique générale la tribune non déclaration ou fausse déclaration de patrimoine la xëye les ministres le ministre les ministres récalcitrants mu mel ni nag ministres yi nga xamante ne nii dañoo war a amal lii di seen ab déclaration de patrimoine fi mu toll nii nag délai ñetti weer ya ñu leen mayoon. ak la leen ca mën a fekk lépp journalub tribune dal dina ca dikk mu mel ni nag ay sanctions yu méttee métti mën na dal ci seen kaw ñoom ministre yi nga xam ne rek defuñu li ni mel ba ci prison sax journal bi dal dina xamle ni mën na dal ci seen kaw stade yéenekaay la ñuy dal di ubbi quel adversaire pour les Lions mu mel ni nag CAN 2025 ak tirage au sort bi nga xamante ne fa yéene nañ ko amal ni ki tay ji ñuy xaarandi réewum Sénégal ban équipe la ca war daje dajeer loolu itam ci beneen xët ubbi rek kii nga xamante ne moo di dandoo yi ma nga xam ne ma ngay évoluer fële ca Suisse ñu daal koy gis ci euro bi nga xamante ne ma nga cay amal ay performance yu mucc ayib moom dandoo yi nekk ab sénégalais boo xam ne bëggoon na itam ñëw fii ci équipe nationale bu Sénégal stade daal na ci dikk bu baax baax réew mi quotidien la ñuy daal di ubbi réew mi quotidien rek dafa daal di des ca mercato fu Iliman Ndiaye mi nga xamante nii rek daal dina justifier ak demam fële ca Everton moom Iliman Ndiaye nag daal di justifier ab demam ca Everton ah, gannaaw loolu itam journal bi xamle na ne kii di Idrissa Gana Gueye bokk na ci ñi nga xam ne rek ñoo joué rôle bi waral kooku di Iliman Ndiaye nekk international sénégalais mu dal di signe ab contrat ah, fële ca Premier League ca Everton bi nga xamante ne Idrissa Gana Gueye foofu lay évoluer ah, jamono ji mu nekk information boo xam ne rek réew mi quotidien daal dina ci dikk bu yaato yaatu Ramatoulaye Fall voilà merci beaucoup Ibrahima fay c'était la revue des titres nekkoon li nga xam ne moo gënoon fës euh, ci euh, yëglekaay yi laata ñu jàll nag euh, ci xibaar yi nga xam ni moo gën a fës nag tey dañuy daal di nuyu suñu invité mi ngi wuyoo ci turu Mansour Ndiaye Mansour Ndiaye secretaire général de la CD CD CDEFS sur les examens mu daal di ñuy fekk si léegi ñu ngi lay nuyu monsieur Ndiaye. salaamaaleykum wa rahmatullah delloo nuyoo auzu billahi min sheytaan rajim bismillahi rahmani rahim eh, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli di leen nuyu yéen ñi ma bokkal plateau bi yëpp di nuyu téléspectateurs yi eh, di gërëm lu di rafetlu invitation bi di leen ci gërëm di leen sant di ñaan yàlla lépp luñ ci waxtaanee muy njëriñ ci askan bi merci beaucoup euh, monsieur Ndiaye ci kanam nag dinañ am ak moom euh, waxtaan bu yaatu jëm ci examen yi nga xam ne jamono ji mi ngi am ak perturbation yi jot am waaye laata loolu mbokk yi dañuy desandi ak ki nga xam ni moom mooy Ibrahima Faye mu ñëw ak ñun ci xibaar yi nga xam ni euh, jot na fee ruusee Ibrahima lan moo gën a fës ci xibaar yi. ayca ramatulaay ñu daal di dem rek li gën a fës ci xibaar yi ñu daal di koy doore itam ak la nga xam ne moo xewati ca mbëkk ma. mu mel ni rek ab gaal moo daal di nërmeeluwaat fële ca biir géej ga gaal ga nag mu nga bàyyeeku woon ca mbuur ca mbuur géej yeboon ay migrants yoo xam ne rek dañoo jugoon ngir tukki ni ki altine ci guddi la boobu boobule gaal daal di rek suux ca biir géej ga Dakar ak ci nag daal di nañ cee annoncé lu toll ci fanweeri doomu aadama yoo xam ne daal di nañ cee ñàkk seenu ku bakkan waaye fukk ak ñeent ci ñoom daal lañu dëggal ni ñoom ñi ñàkk nañ seenu ku bakkan ci boobule mbir. ñu daal di dem rek ba tey ci homme d'affaires Baba Diaw mi nga xam ne rek génn àdduna ni ki démb ginnaaw feebar bu métti bi degoon ci yaramam waaye itam feebar bu yàggoon lool ak moom nekkoon ku ñu ràññee itam ah, ci wàllum pétrole ni ki ah, tey jii la ñu ko fas yéene daal di jébbal suñu borom bu 10 heures jotee fële ca Thiès kaay ah, les assises de la justice itam dinañ ci wax jëmale ko ci la nga xam ne xewoon na fële ca Diamniadio muy rek ana nan la ñuy def ngir tëggaat. Euh, suñu euh, justice di wàllum yoon ana nan lañ koy tëggaate président de la république di basiiru Diomaye fay euh, fas yéene jot li nga xam ne rek mooy conclusion yi maanaam la ñu fa daal di tënke ci yooyu les assises dinañ ko dina ko jot moom njiital réew mi président Bassirou Diomaye fay politique ba tey Ramatoulaye ñu wax ah, tamit ci député UPDS yi nga xamante ne nii rek ah, daal dinañ fas ne dugal lii di app proposition de loi mu di Nafissatou boobu boobule proposition de loi nag la ko tax a jug mooy rek modifier maanaam lii di règlement intérieur bu assemblée nationale lépp rek jëm ah, ci kii di premier ministre Ousmane Sonko mën a def lii di ab déclaration de politique générale am fële ca pencum ndaw yi réew mi ci kanamu ñi nga xam ne rek ñoom ñooy député ya nekk ci assemblée euh, nationale loolu mooy rek euh, li nga xam ni euh, mooy li gën a fës ci xibaar yi ñu dem ca tàggat yaram tamit wax. ci défenseur central bi nga xamante ne nii rek mi ngi nekk fii ci réewum Sénégal di Moussa Niakhaté may annoncé ak jugeem fële ca Nottingham Forest moom Moussa ñaxate nag fas yéene engagé wu dellu ca Ligue 1 bu France ci club bii di Olympique Lyonnais ci ab contrat bu toll rek ci ñeenti at ñeenti at yoo xam ne lañu ko fay toll na ci fanweer ak benn ci ay millions d'euros moom nag daal dina jël boobule décision daal dina ko publier itam ci ay pasam Ramatoulaye Fall dañuy dem rek directement ci actu commenté wax rek ci li nga xam ne moo ñeel député yu PDS yi fas yéene dugal li di ab proposition de loi ci assemblée nationale ngir daal di tëggaat waaye itam modifier règlement intérieure bu assemblée nationale voilà euh, Ibrahima merci beaucoup comme ni nga ko waxee mbokk yi dañuy jàll euh, léegi léegi ci suñu actu euh, commenté comme ni nga ko waxee ñi di député doyen yu PDS di parti démocratique sénégalais nar a dugal nag li nga xam ne moom mooy proposition de loi mu mel ni nag ñoom ils viennent en sapeur pompier ils viennent pour peut-être li nga xam ne moom mooy situation bu bañ a dégénérer wu ils viennent un peu pour à la rescousse de l'Assemblée nationale wala à la rescousse du peuple ñoom dañoo tuddee seen bopp coalition Wallu hmm. bi yoon nag ñulum nañ seen tur hmm. dafa mel ni dañoo ñëw wallu hmm. nit ñi ak euh, seen bopp aussi ak askan wi pour ñu génn ci situation bi dafa am ñetti baat ñetti lettre DPG maanaam moo lëmbal réew mi depuis presque quinze jours maanaam déclaration de politique générale loolu dañoo baaxoo loolu du dara ah ci réew mu normal réew mu am démocratie am constitution dañoo baaxoo bu ñu nommee premier ministre ba pare bu njëkk ba dañ lay may ñetti weer pour nga def declaration de politique générale néew na sax ñu ko fi respecte parce que boo xoolee Moussa Niass bi muy def déclaration bi respecté ko Abdou mbay même chose président Macky Sall à l'époque premier ministre ñu ngi ko nommé avril deux mille vingt quatre ñu ngi def déclaration de politique générale en octobre deux mille vingt loolu ëpp na six mois boo xoolee aussi ñeneen yi ku mel ni Idriss Seck passé woon na trois mois malgré jamono yooyu trois mois léegi nag affaire changer changé na constitution article cinquante cinq moo ne le premier ministre fait la déclaration na tey def déclaration. mais nag wutalu ko àpp wutalu ko délai daf ko war a def quoi loolu la constitution bi wax léegi nag ci biir loolu ñu dem ba deux mille dix neuf am lu fi xew maanaam suppression poste premier ministre mm. bi ñu ko supprimer nag dañu ko dugalaat deux mille vingt et mais bi ñu koy dugal poste premier ministre article dafa amoon ay dispositifs yi moo ànd ñetti mm. dispositif benn bi mooy déclaration de politique général mm. beneen bi mooy motion de censure beneen bi mooy question de confiance premier ministre mën na taxaw ne man dama bëgg a bu ngay wóolu ngeen ma wala déet Amadou Ba defoon na defuloon loolu mais moom waa opposition ñoom déposé motion de censure contre lui donc condition ya Amadou Ba dafa woon kii déclaration condition yooyu moo fi nekk ba léegi même réglement boobu changé wul te ñoom ñiy wax léegi nangu woon nañ ci condition déposé motion de censure mhm. nangu nañ aussi réglement bi jaarul yoon ñu ngi ci voté ay loi ba tey mhm. est-ce que les questions bi sax mën nañ ko laaj ndax loi yooyu valable na mhm. comme que ñoom leen dañoo falsifier règlement mais léegi daal li am solo mooy déclaration politique générale premiers accords la mais li indi coow li na mooy waaye yeewu askan ñoo ne ko doo ko def parce que da nga nekkul règlement intérieur bi jaarul yoon dañ ko falsifié wax seen wax ñu ne leen di ngeen ko def par force moom ci boppam ndey mbili gi Ousmane Sonko génn moom léegi ne moom déclaration dégg lu lay wax ji de mm-hmm. déclaration pare na mu ngi sama table man dinaa ko def waaye dinaa leen may 15 jours boo leen réglé wul problème bi man ma defa ko ci benn jury populaire loolu moom wax dëgg yàlla mm-hmm. teguwul mm-hmm. parce que amul benn réew suma constitution la ñu am maanaam bu dee musulman nga mooy sa bu dee chrétien mooy sa Bible loolu la ñu am mu am fu ñu tënk. mën na def déclaration de waaye bu de feneen. waaye du tudd déclaration de politique général leneen lañ koy mën a tudd déclaration de fenn la la yoon maye nga def ko mooy assemblée nationale. ci représentant du peuple. léegi bu loolu weesoo man yaakaar naa ne problème sax warul woon àgg fii. Mhm. parce que moom nee na affaire bi pare na te bëgg na def. ñële na ko dañoo bëgg nga def ku bëgg foofu fanaan ak ku wut ku la wéttali tëjal bunt bi war leen mën a jubal léegi nag moo tax vraiment attitude PS PDS bi c'est une attitude très responsable parce que xam nañ ne le problème problème bi lan la du du du du règlement bi la ñu modifié xam nga looy def dugal ci déclaration de mhm. politique générale ak motion de censure ak ki loolu mhm. en vingt quatre heures mën nga ko def léegi nag ñaari façon gérer loi moo am soit mu doon projet de loi mu jógee ci président ñëw ci député yi wala mu doon proposition de loi ñëw ci ci jóge ci député yi dem président de la donc léegi yaakaar naa ne mbir mi presque jeex na hmm. parce que maam maam Diop président assemblée jot na dajale groupe parlementaire nañ fexe régler problème bi bon am na ay médiateurs ñu ñëwaat tegin donc defe naa li des bareetul léegi nañ dem ci proposition certainement on va convoquer une session extraordinaire parce que session bi war a ñëw octobre la te duñ bu mën a xaar ba octobre la bon dinañ convoquer sesion ak bu dee bëgg nañ ko def mais l' essentiel moom dina def bu soobee yàlla déclaration de politique mu yéex mu kii mais dina ko def léegi nag Sénégal parce que loolu dafa am solo parce que ça permet moom ci boppam Ousmane Sonko mu am une vision claire de ce qu'il fait. Mhm. xam fi mu jëm point bi laa jóge point bi laa jëm nii laay jaar ak yooyu député yi xam askan wi xam et puis aussi on a des partenaires financiers parce que sunu alal li ci ëpp ci bitim réew la ko gars yi di jëlee. Mhm. kooku bu mbir yi leerul ci boppam du ci dugal alalam donc boobu. partenaires financiers ñi ñuy surveiller ñëpp du ñuy surveiller te ñoom ñoo ne ne jub jubal jubanti mm. kon kay warul am problème léegi daal nañu fexee ba di dox ci sartu réew mi ku nekk gis ci sa bopp après ñu avancer parce que li li ngeen di wax rek seen général dama leen léegi ngeen rester focus quoi. focus rester euh, euh, balaa ñuy jàll est-ce que aussi tamit euh, peut-être mën nañu wax ni bon coow li tere na en longueur mais est-ce que du peut-être refus bi nga xam ne Ousmane Sonko def na ko ak député Yewwi Askan ce n'était pas un mal pour un bien parce que dina permettre peut-être ñu revoir texte assemblée nationale yi defaraat ko ba yooyu problème du fa amaat. waaw yooyu yooyu bo loolu baax na xam nga mm-hmm. la crise elle est mm-hmm. ñu bari dañ ko ragal na quoi mm-hmm. mais crise day tax ñu régler ay problème mais taxawaay bi lu tax amuñu ko woon deux mille vingt en un ba léegi waaw ah, c'est ça te góom baam fi woon ci doy war na mais euh, il n'est jamais tard pour bien faire léegi daal comme nga jël nañ taxawaay waaw député euh, wallu yi wallu nañu askan wi wallu wallu réew mi mm-hmm. c'est une bonne chose léegi mm-hmm. nañ jublu ci lool bu buñ fi bu fi kenn nag indi ay galgal wala di fi wax lu kenn xamul nañ jublu ci lii ñu régler ko une bonne fois pour tout parce que jàngoro bi ñun ñëpp xam nañ à tout ci politicien Sénégal jàngoro bi ñun mais politicien Sénégal xam nga ban problème la ñu am dañuy dañu am ñaari cat bu njëkk bi mooy amuñu constance di sëñ Abdoulaye di wax daan wax nit ki jara fonk mooy ki mm. nga xam ne waxu démb dafa méngoo jëfi teem beneen mbir mi mooy incohérence da mm. gis koo xam ne day tam nit dëmb juróom fukki at ak ñaar wëlbaliku ñu xaritoo xam na mm-hmm. xaritu démb yi ñoo ànd ak noonu noonu démb yi ñoo doon xaritu tey comme li ngay wax tout le la gestion des intérêts waaw loolu la quoi finalement doo xam politique bi lan lay niru te politique aussi bu ñu ko doon def ni ñu ko ni ni mu gën a rafetal maanaam mooy la mm-hmm. gestion de la cité gestion de la cité mooy defar réew mi mm-hmm. mooy nga fàtte sa bopp fàtte say intérêt looy yëngu nga xam ne askan wi mais finalement ñun suñu bo politique moyen tassation sociale da ngay fexe noo ci yokk ko da ngay fexe noo gën a am alal sunum réew rek ngay gis ni kuy feyeku ñetti millions di maye ay juróom millions saa yu ko kii rek la mhm. liggéey benn ñaari at am immeuble. waaw wala gis ay politiciens yu nekk milliardaires milliards mhm. ay millions ngay compter un ba mille. loolu moo taatal suñu mhm. réew mais buñ daal yéene yi gars yi am. ñi ko yor léegi. buñ buñ ko jëmmalee. mu bañ a doon nag parce que xam nga wax jafe na wax yomb na mais jëf moo jafe mhm. surtout réew moo xam ne ñun dañoo am ay kilifa am ay xarit am ay kii te say mbokk dañuy taxaw ne la ah sëñ bi da falu te waay mhm. wàcc dafa gaaw jéemal defaru donc yooyu yëpp daal bu la yàlla dimbaliwul mën nga dugg ci yenn looxóor yi waaw mhm. mais nañ ñaan yàlla rek réew mi teguwaat ci ay raay ku nekk gis ci sa bopp surtout ñu ngi dugg ci benn air bu ñu tuddee airu pétrole. Mm-hmm. pétrole bi wax dëgg yàlla warul doon mbugal pour ñun la war a doon yokkute ku nekk gis ci sa bopp. Mm-hmm. bu boobaa boo soxlaa benn marchandise buy jar un million nga jënd ko sans problème <laughs> buñ lay jaay benn service à un million nga ne non amul problème yàlla ñu yàlla yóbbu foofu. amiin amiin comme li xale yi wax euh, Dakar is the new is the new Dubai loolu la ñuy wax. Ah, yàlla baax na <laughs> parce que Dubaï xëy ñu def lii de. Hmm. dañoo xool situation bi analyser ko. Hmm. dañu nan la ñuy def. woo gars yi ñëw dugal seen alal ñu kii pétrole en même temps ñoom ñuy def transfert de technologie. Hmm. di former seen i gars. di xeex di xeex ba jël lépp moomal ko seen bopp di def lépp. ñun xam ñun problème bi njëkk am mooy dañoo amul alal. waa ji ñëw di gas pétrole def ci alal ju bari. boo léegi boo boo boo leen demee ba ci biir nga ne ko damay négocier bu ko neexee sax mun na la kiiwatuma donc day jafe en tout cas gis naa ñi ngi jéem a jaar ci yoon nañu fexe daal xam nga wax ji fan la nekk indépendance mooy nga am drapeau am am réew am ay capital ak yooyu mais li ci gën a am solo mooy souveraineté mënal sa bopp mm-hmm. mën a pour nga moom sa bopp il faut nga mënal sa bopp tant que yow sa c'est mënaloo ko sa bopp rek mënoo ko moom sa bopp en tout cas nañu fexee ba ci wàllu mbay ci wàllu industrie ci wàllu élevage ci wàllu commerce. Mm-hmm. ainsi de suite ak ci wàllu xam-xam aussi ñu jàngal xale yi loo xam ne dina leen amal njëriñ technique bi ñu ki xool di nga dégg chaque jour ñu ne la météo météo bi mm. gars yi di la wax mais pour nekk météorologue ñun amuñu école de formation bi. Mm-hmm. amuñu école de formation fii il faut nga dem France wala nga dem Algérie wala nga dem Niger Niger le pays le plus pauvre du monde ñoom lijjanti ñun foofu la ñuy def mm. formation mm. xoola Maroc pour maîtriser météorologie onze radar la ñun benn radar la ñu am te dafa panne <laughs> donc ça doy na waar doy na waar est c' est compliqué ah mais doyen comme li nga wax rek on a espoir parce que comme li ñu wax l' espoir fait vivre yàlla na yàlla def comme ah. li ñu wax yëpp rek yàlla dimbali ñu ci incha allah ñu nekk euh, comme ni ko yeneen dëkk yi di waxee en voie de développement euh, bu ñu tegoo ci yoon bi rek incha allah mën nañoo euh, espérer li nga xam ne voilà <laughs> voilà mën nañoo <laughs> espérer développement merci beaucoup <laughs> <laughs> voilà merci beaucoup doyen euh, merci beaucoup Ibrahima euh, euh, comme ni doyan waxa ñi nga xam ne ñoom ñooy wàllu askan wi wàllu nañ Euh, comme li ñuy wax askan wi parce que euh, ñi ngi doon wax di ñi ngi nekk ñi ngi doon jëm ci peut-être crise institutionnelle euh, ñu nit ñi doon xalaat le pire mais ñi nga xam ne ñoom ñooy député yu wàllu askan wi di PDS ñëw nañ peut-être dugal proposition de loi ngir defaraat li nga xam ne moom mooy situation bu fële ci assemblée nationale. mais man li may wax rek ñoom peut-être dañu ñëw pour sauver pour ne pas périr. Mhm. parce que bu fekkee da nekk ci gaal bu ñaan jamais gaal googu këpp. su mhm. ko du la fa bàyyi. et ñoom dañu nekk dañu nekkoon ci euh, crise institutionnelle boo xam ne chaque jour moom lañ doon waxtaane ñu ne tey lii mën na ko saafara muy proposition de loi boo xam ne euh, député yi am nañ prérogative pour de proposer loolu président de la république euh, ñu jàpp ne waa Benno Bokk Yaakaar coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom juguñu ci. defuñu ci benn jéego mais peut-être am na ay armes yoo xam ne ñu ngi mi ngi ñu mettre à côté pour pour mën a jàkkaarloo ñi nga xam ne ñooy le pouvoir en place mais tey ñu gis euh, ñi nga xam ne ñooy waa Wallu ñu def proposition de loi boobu pour sauver crise institutionnelle boobu ngay wax man nag li may wax rek mooy peut-être mënoon nañ bañ a yegg fii parce que pour man euh, muy le premier ministre bi nga xam ne moom moo war a def déclaration de politique générale tout à tout yaa ngi koy wax peut-être li tax deful loolu Euh, c'était juste pour ñu mën a régulariser li une bon fois pour toutes parce que c'est benn benn défaillance la boo xam ne nekk na Sénégal depuis Amadou Ba ñëwaat Ousmane Sonko fekk na fekk ko fi bu ñu bàyyiwee mu jàll ci Ousmane Sonko peut-être mën na lawaat ba demaat ci keneen ak keneen te je pense que euh, war nañu mën a suñu ay textes loi yi ñu koy mën a tamit di ko tëggaat muy ànd ak textes yi di nekk loo xam ne ay normes la donc pour man ñàkk def bi peut-être mën na saafara lii mais mu defoon ko tamit. doon doonul woon yàq ci moom dara parce que doyen mu ngi koy wax tout à l'heure mooy que projet bi muy wax mu ngi en place déclaration de politique générale bi pare na pour def ko mais parewul pour def ko assemblée parce que li koy pousser wala li ko wala permettre mu def ko assemblée loolu tey amul assemblée donc lu ci loolu la sukkandiku mun ni dina ko def mais du ko def assemblée nationale te di leen jox délai de quinze jours man nag sama problème mooy délai quinze jours parce que bu fekkee da ngay wax affaire te nga nekk ci état ay loi moo tënk. Euh, constitution moo la tënk ay règle moo la tënk pour man lépp looy wax dafa war a nekk ci texte ak règle mais bu fekkee da nga choisir sa benn dat ne bu ñu àggee tell date defuñu nangam man dinaa def nangam te ci anam bii laa koy def te loolu àndul ak suñu yoon je pense que ne ci benn nit boo xam ne nekkoon na fi comme un représentant du peuple la ko nit ñi doon xoole mooy koo xam ne dafa jug pour sauver le Sénégal peut-être ci yenn injustice yi ak yeneen du genre tey boo ñëwee am benn posture bi sa pose problème yenn Sénégalais yi aussi dinañ poser bu problème ci yow posture bi nga amoon avant bi ngay nekk à l'opposition ak posture bi nga am moment où nga nekk à la tête du de ce pays donc man loo rek moom ci xaw a déranger le fait que mu leen di jàppal date boo xam ne moom ci xalaatu boppam la comme si moom moo leen moom wala moom moo leen diriger. que mais boo boo xoolee boo xoolee Ibrahima les faits euh, peut-être que 15 euh, jours yooyu mu jàpp yanu na maanaam peut-être ni mm. mën nañoo jàpp ni mën nañoo régler situation bi en moins de 15 jours. mais en moins de 15 jours yanu na maanaam lu yanu rek na nekk loo xam ne tey dañu ne règle telle wala constitution dana nangam wala ñu ne assemblée. xoolee dane la nangam ak nangam su boobaa pour pour man ñun dinañ mën a ne suñ premier ministre kat li mu bañ a def fii la ko teg wala fii la ko teg lii moo ko permettre mu may leen jours mais ci sa xalaatu bopp nga ne may naa leen jours pour bu ñu deful nangam man ma def déclaration de politique générale fu ma neex laa koy defee ci choix bu ma neex pour man loolu c'est juste pour reprendre li nga xam ne amoon na ces derniers temps parce que gis nañ un chef de parti parce que moment Marine Mélenchon mais dañu gisoon benn Ousmane Sonko comme chef de parti mu dem université benn université boo xam ne peut-être mën naa ne tey ñi fa nekk ñoom lañ yaakaar pour avenir Sénégal ëllëg nga mën leen fa yóbbu pour ay question politique pour man loolu mu defoon loolu la nekk di reprendre lépp nag tënkuwul ci yoon te bu ñuy wax dëkk dañuy wax dëkk boo xamante ne dañ ko teg ci yoon dañ ko teg ci loi teg ko ci règle parce que injustice bokk na ci li ko permettre tey mu mën a nekk premier ministre ba am président comme Bassirou Diomaye Diomaye fay parce que moom moo ko doon xeex Sénégal donc injustice boobu li ñuy xaar ci moom mooy mu indil ñu benn rupture boo xam ne bu ñu nee rupture mooy mu fi fekk loolu lay jima changé indi dëgg ak yoon ak loi lépp lu ñuy def ñu tënk ko ci loi même bu fekkee suñu ay règles sax dañu dañu sentir ne peut-être am na benn manque de technicité bu ci am wala ay défaillance yu ndaw parce que bu ñu nee lii da lay permettre nga def lii nga demaat ci beneen règle bu lay wax la permettre nga def nii lépp maanaam sentir nañ ñi suñuy ay institution am na ay manquement mais manquement yooyu bu mu la tere bu mu tax benn yoon yow mi nga xam ne yow yaa jiite ngay abuser ci sa pouvoir di def loo xam ne àndul ak yoon dëkkoowul ak yoon donc li ñuy saluer mooy comme attitude bi nga xam ne peut-être waa wallu am nañ ko Hmm. wolu sénégalais yi ci crise institutionnelle bi nga xam ne moom la nekkoon di waaj a dund te ñaanuñu yàlla dund ko. voilà merci beaucoup Ibrahima euh, comme euh, ni ko doyan ak euh, Ibrahima waxee crise institutionnelle nekk na loo xam ne peut kenn ñaanu ko yàlla voilà ci ci réew moo tax dañuy dañuy wax ni que peut dañuy on s'attend à ce bi revenir à la balaa loolu yëpp di ci am peut que proposition de loi bi ñu ngi ñaan mu daal di jàll lépp revenir à normal monsieur Ndiaye euh, ñu laaj la tuuti ci li ñu doon waxtaanee léegi di proposition de loi bu député yu PDS yi nga xam ne dugal nañ ko proposé ko ngir ñu daal di revoir texte assemblée nationale et defaraat ko. waaw Ramatoulaye euh, loolu wax bi leer na franklaayu na comme niñ koy waxee donc ni ko gars yi waxee touché nañ doyen ak Ibrahima touché nañ point yëpp li ci amoon solo euh, problème bi loolu la mooy ni assemblée dafa nekk. benn institution boo xamante ne bu am solo ci réew parce que euh, ñoom dañ fi yàgg di xeex amoon benn posture euh, opposant euh, donc opposé wu opposé wu opposition bu metti nag parce que dañ doon xeex-xeex bu metti ñuy dal seen kaw di acharné wu seen kow di leen def lu ne ñuy xeex biir xeex bi ñu dem ba gis ne ki ñuy xeexal seen principal adversaire c'était le l'ancien président Macky Sall mm. donc que moom du nit boo xamante ne xam na maslaa xam na neexal donc il fallait que nga koy imposer benn benn rythme donc le, le fayantoo la gatsa gatsa bi ñu daan def entre ñoom ak Macky donc da nga ko mën comprendre parce que en tant que opposant léegi nag de l'instant que ñëw nañ ba yore pouvoir nag day am benn benn transition il faut ñu jógee opposition d'abord ñëw pouvoir ñu changer posture wane na léegi nekkatuñ ci euh, taxawaayu gatsa gatsa boobu mais dañu nekk ci taxawaayu jiital réew mi yépp am responsabilité yore ñépp di ko teg ci yoon comme ni mu ko waxee suivre constitution bi lépp lu yoon wax loolu la ñuy def lu yoon waxul bàyyi nañ ko mais boo nee ñëw tiim ay nit nga ne leen may naa leen dale bon sa papa sax en général léegi bu ñëwee tim la ne la may naa dara ñaari fan boo deful lii génn kër gi saagatul di nga génn kër gi. Mm-hmm. donc soo jiitee ay mbooloo yëpp nga ne may naa leen dale 15 jours. Mm-hmm. boo leen deful lii man ma def lale ça veut dire que forcément bu ci keneen doxul di di nga defi leneen la te nag jiite ay nit aussi dina li ma bëgg rek man loolu lay def. sama mm-hmm. sama yoon nekkul ci neex na leen neexu leen. Mm-hmm. d' accord ngeen d' accord leen loolu aussi mun nañ la ko tolérer en tant que opposant mais en tant que njiitu réew mi moom euh, du neex a tolérer. Mm-hmm. donc et un chef de gouvernement il faut que ñu apprendre à faire cette transition là. vraiment di. teg lépp si yoon di dialoguer di masla et puis lijjanti li ñu bëgg dem si yoon. defar réew mi surtout. Mm-hmm. Mm-hmm. voilà loolu daal la ñu gën a soxla mais mm-hmm. problème moom amu ci. assemblée quel alpha ñëpp d' accord nañ ne dina war na def déclaration bi. moom d' accord nañ ñeneen ñëpp d' accord nañ. et que dina ko def euh, donc c' est ça l' essentiel maintenant amul délai ci constitution bi kon jarul xiiroo jarul ŋaayoo nañu ci waxtaan ba trouver terrain d' entente. mu def déclaration ñu continuer mhm. voilà merci beaucoup monsieur euh, Ndiaye mu doonoon la chronique euh, pardon mu doonoon suñu actu commenté euh, mi nga xam ne nag tey ñi ngi doon waxtaane règlement intérieur de l'Assemblée nationale des députés de la du PDS dépose une proposition de loi moom lañ doon waxtaane léegi dañu jàll léegi léegi ci suñu chronique du jour laata loolu nag ma leen di fàttali ba tey yéen a ngi seen émission bët set émission bi nga xam ne à chaque fois comme ni ma leen ko waxee moom mooy seen premier rendez d'information comme wax bu leen fàtte à chaque fois di abonné ci chaîne YouTube bi l'évidence TV di di bés itam li nga xam ne moom mooy cloche de notification moom moo leen di permettre nag vidéo bu mën a dugg ngeen mën ko am en temps réel euh, l'évidence euh, TV euh, ci YouTube doyen dañuy jàll léegi ci suñu chronique du jour comme chaque jeudi ñu ci ànd ak doyen Demba Ramata tey nag ñuy waxtaanee l'APR APR bi nga xam ni nag moom mooy parti bu président bi fi génne di président Macky ñu gis ni jamono ji bëri na problème yoo xam ni am na ci euh, comme ni ñu ko intitulé l'APR euh, prend eau de tout de toute part euh, fu fu nekk rek comme li ñuy wax ci luy baax la côté yëpp daal benn seddul jamono ji nga xam ne nag président Macky Sall kenn déggu ko mu àddu ci jëmale mu mel ni nag pëccëxoo am na ci biir alliance pour la république doyen loolu lan nga ci xalaat. ko créé mi ngi tudd président makisal fekk mu nekkoon juróom-ñeenti at ci keppaaru Ablaye Wade occupé fi ay responsable dem nekk premier ministre léegi nag yàlla dogal ci seen biir ànd ñu dem ba gis-gis ci waroo bëgg-bëgg yi waroo ñu tàggali ko tàggali ko ba sax boo xam ne rafetul vraiment ba Macky Sall ber daaram mm-hmm. yàlla dimbali ko Sénégalais yi aussi jàpp ko parce que dañ defaroon ne moom bu ñëwee dina soppi parce que yi mu digoon wax dëgg yàlla ak ni mu ko doon waxee dafa neex a neex ba da nga koy da am yaakaar ju bari ci nu mu la daan wax rien ne sera plus comme avant lenn du mel ni li fi nekkoon gestion sobre et maanaam lépp dama koy sakkanal mhm. je ne mêlerai jamais ma famille dans l'exercice du pouvoir sama sama famille. Hmm. du boole ci pouvoir ki ko jiitu woon sax amul na ñaar muy doom ji ak Karim Wade ak kii mais kii goro yeeg <laughs> rakk jeeg ñëpp defoon defoon nañ daal ba am hmm. doole yooyu yëpp mu boole mu boole ko boole ko aussi. di ñu gëmloo ne wax dëgg yàlla dinañ jële point bi yóbbu ñu fu sori yéegal en mais malheureusement ci biir gouvernance am na bon mbir yu bëri sooxe na fi ci wàllu transparence maanaam leeral ci wàllu aussi bon gouvernance yorin wi scandale yi bari na yàq bi bari na coow yu bëri léegi nag ci biir loolu nag moom moo yoroon pouvoir pendant douze ans yor parti am mu doon nag benn li ma tudde woon à l'époque PPP propriété privée et personnelle de Macky Sall mu doon yëfam nag wax dëgg yàlla nga xam ne structuré wu ko du ba 2012 kenn xamul numéro 2. Mhm. même bu ñuy def élection locale sax gars ko ne ah am nga carte blanche. ba léegi nii sax escape na numéro 2. non ba léegi nag. Mhm. mu bàyyi nag yàlla def mu jóge ci réew bopp réew mi. Mhm. mais nee na bàyyiwul moom mooy secrétaire général bi moom moom mooy gérer parti ba léegi. Mhm. mais ma nga diggante Maroc ak France. Mhm. ma nga France di xam ne <laughs> président am moom mi ngi yor 4P waaw nekk envoyé spécial am bon dëkk Maroc encore bëgg a gérer bi mais dafa am nag jamono fu muy toll surtout partie bu jógee pouvoir. Mhm. pour mu jógaat day métti. mbej bi dafa dal ba nga xam ne parce que parti au pouvoir ñu gagné la au premier tour avec un score de cinquante quatre pour cent dans l'histoire politique de ce pays mosu fi am mm-hmm. donc ça veut dire que mbéj mi metti na mm-hmm. te léegi aussi ni nga mënoon ci ñoom mënutoo ko mm-hmm. parce que amoon nga état am moyen de l'état am poste yooyu nommé gars yi gis nga mag buy naan suukar ndox mu tànk suukar saa tax donc gars yi dañ la doon topp parce que gis nañ ci yow intéret gis nañ mhm. ci yow ay privilège gis nañ ci yow mën nga leen nome moom tamit ñu nome seen i mbokk donc mais loolu yooyu yëpp perte mhm. léegi nag problème foofu la nekk te quand le navire maanaam gaal buy suux gars yi tubaab yi ñoom dañ ne les rats les rats sautent man nag du ma wax les rats sautent mais damay ne les occupants rek sautent mhm. donc foofu lañ toll ku nekk day daw wuti leneen léegi nag dañuy pëcc xoo bi Amadou Ba bon mi ngi wone boppam Aliou Sall bu ñëpp demoon bon ci logique moom moo fi waroon des parce que sa mag la ngeen bokk ndey ak baay <laughs> ñëpp bu ñu commencé di daw wax dëgg yàlla mënu nga toog mu mu ñë mu ñë mu ñël <laughs> na moom mais moom yooyu dem na mi ngi wax ak ay Amadou ngi wax euh, donc yooyu ak sans compter ñiy démissionné chaque jour ak ñoo xam ne démissionné wu ñu waaye li ñu def moom démission ñooyu dañoo ber seen loxo jàpp seen njàmbur ñenn ñi di xaar ban sort laay am mhm. parce que nekkoon naa ministre wala nekkoon naa DG yoroon naa fi alalu réew mi donc yooyu bu dajaloo parti boobu nër loolu voilà doyen ma bëgg euh, boo xoolee dernier acte yu Macky Sall ñu bari jàpp ne ne da leen trahir mhm. parce que kenn comprendre quoi acte bu mu posé rek ci dernier six mois yi. Hmm. acte boo xam ne pour daaneel sa waa parti la. Hmm. pour daaneel sa candidat nit ñi comprendre ñu bari jàpp ne ne daf leen trahir bëggul woon kii bëggul woon dono bi rafet te héritage bu mel noonu ñoom buñ sañoon ñu préserver mais fi mu toll nii dina jafe lu di dal PDS. Hmm. gis ngeen ko di dal AFP gis ngeen ko ak yeneen parti yoo xam ne yëpp dañoo pexe nguur donc ce sera très difficile pour la l'APR de se relever. Mm-hmm. léegi nag dina bari ay pàcc-pàcc. dina doon armée mexicaine général bu nekk ñëw jël sa kii toog fii maa ko res. kii mm-hmm. res fii kii ainsi de mm-hmm. suite. mais dina jafe te amatul influence ci ñoom. mun leen wax ñu dégg comme ni mu ni mu ko bëggee woon. léegi kon faale wuñ ko parce que yaakaaruñ dara ci moom xaaratuñ dara ci moom donc Macky Sall problème boobu lay njëkk am. Hmm. problème autorité ak kilifteef ñu mu yilifoon hmm. te fu leen mës a joxoon ñu daw ne ko bu sëqatee sax ñu nag yaa karam laa xam yaaram kala a son avenir qu'au mel ni nag comme doyen bu ñu la déggee l'APR c'était Macky Sall bi mu demee euh, donc il n'y a plus peut presque plus loolu la ñu nekk di gis euh, voilà voilà survivre sans sans lui peut-être euh, bon li ci kanam rawul yi bët peut moom dina revenir at être ki restructurer li nga xam ne moom mooy parti bi Euh, loolu euh, ñu ngi koy xaar Ibrahima ban gis-gis nga am euh, ci jamono ji li nga xam situation bi nga xam ni APR mi ngi koy dund nga xam ni situation comme ni doyen wax ci dernier six mois yi lañ ko daal di gis ah, wala si dernier si dernière année bi lañu ñu daal di gis ni APR dafa daal di ndërmeelu carrément te boo xoolee daanu bi mu daanu ki nga xam ni moom mooy njiital APR boo xoolee lépp lépp lépp bu ñu mënee wax ci moom la jóge waaw euh, set c'est normal mm-hmm. je pense gis nga kër sax boo ko yoree. Mm-hmm. Euh, jiital ko sa bopp. te gisuñu kenn koo xam ne jàpp nañ ne moo war a topp sa ginnaaw wala avant ngay dem jàpp nga ne kii moo war a jiite kër yi boo fi jógee boo fa jógee kër gi dina pëccaxoo dina jaxasoo ndax taa caat bi sax mën na jóg jàpp ne moom mooy jiite kër gi te loolu moo am APR mooy président Macky Sall lañ gisoon moom mu jiite ko. mais ñi topp ci ginnaawam koo ci gis rek jàpp mën nga jaakaar ne war na mën a topp. ci parti bi amul hiérarchie maanaam amul hiérarchie. Mhm. amul kenn koo mën a jàpp ne eh, kii moo war a jiite. Mhm. parti bi bu fi président Macky Sall jógee même ba ci choix président bi ñu defoon ci élection yi ñu génn gis nga nu mu demee. Mhm. mooy le choix de Amadou Ba bi nga xam ne moom sax désigné wu ko mais dañu dañuy désigné ay ay ay dauphin yoo xam ne dañu tànn ci ñoom ba jiital Amadou Ba. mais loolu créé woon na frustration. ba nga xam ne conséquences yi moom mooy élection yi dañu ko perdre loolu bokk na ci boo gisee démb amat kii Alioune Sall ci invité TFM bi lim li mu doon wax loolu day firndeel que parti bi amul kenn ku ñu la mën a wax ni kii moo ko war a jiite. Mhm. donc mën nañ jàpp ne ba tey président Macky Sall moom moo ko jiite parce que doyen da koy wax toujours muy parti la boo xam ne mën nañ ko tuddee propriété privée personnelle comme ni ñu ko tuddee. PDS parce que PDS gis nañ Abdoulaye Wade moo ko moo ko yore woon moo ko jiite woon ba fi jógee doomam moo fi nekk donte doomam nekkul Sénégal mais ba tey ñoom ñoo jiite parti bi amul kenn ku ñu la mën a jàpp ne kii moom moo nekk tey jiite parti wala du genre donc mhm. euh, ci boobu lañ nekk ba tey même APR li muy metti metti tey ak ni fii président Macky Sall jógee lépp mën na jàpp ne moom moo ko jiite ba tey amul kenn ku ñu la mën a jàpp léegi nag dans li muy créer mooy mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo fa des ku ci ne bëgg ko jiite da ngay xëcc jëmale ci sa bopp su boobaa lan lay créer frustration ak ay partage ku ne xëcc aw ci benn yoon donc loolu ñu doon def tey moom moo moom moo répercuté wu ci seen kaw ci élection présidentielle bi ñu génn ba doole bi ñu waroon am mënuñu ko am parce que bu ñuy wax doole mbooloo moo tax ñu koy wax. Mm. mais ku ne xam na ne peut-être ak euh, situation bi ñu tolloon donte ñu ngi jiite woon dëkk bi ak ay frustration yenn sénégal et tout mais xam nañ ne dafa nekkoon ci ay leader su fekkoon dañu boole seen doole ñoom ñëpp choix bi président Macky defoon muy si amadu Ba ñu jël choix boobu approuvé ko. dëggal ko kon élection bi mën na bañ a demee nii. su dee mhm. deuxième tour sax. mën nañ fa dem mën nañ fa mhm. dem mais nag euh, frustration bi mu créé ku nekk tey yéenewul sa moroom mu nekk euh, li nga xam ne moom mooy leader bi. donc loolu tey je pense que ne moom moo des APR ba léegi et pour mu régler wu du nekk lu yomb parce que ki nga xam ne moom moo yore parti bi jiite ko ba tey moom mooy secrétaire u bi donc kooku joxagul kenn bopp ne kii mooy jiite wala kii moo war a diriger dans ce nag li muy mujjee indi mooy ku ne ji ma ber yoonu bopp. et pour certains leaders ci parti bi comme Amadou Ba man je pense que loolu moo gën ci ñoom tey ñu ji ma xàll seen yoonu bopp parce que élection bi ñu jógee Amadou Amadou Ba c'était le leader de de de de de moom moo nekkoon deuxième ci élection yi mais mën nañ jàpp ne ci ay propre moyen la battre campagne ci ay propre moyen ak ay nitam ci la amee li nga xam ne moom la am ci élection yi donc kooku su fekkee tey dafa samp yoonu boppam ak li nga xam ne moo topp ci ginnaawam ak ñenn ñam am confiance pour ànd ak moom je pense que ne avenir politique ci lay ëppee sens que mu des APR ku di xëcc di jëmale fii kii di xëcc jëmale fii hmm. toujours frustration yi dafay des Sénégalais yi hmm. ñu gën a manqué confiance ci ñoom hmm. ci monsieur Ndiaye bu dee peut-être mën na ci wax ñaari part balaa ñuy jàll ci euh, suñu li ñu war a waxtaanee ak moom di APR bi nga xam ne jamono ji euh, ci tas la gën a jege ki ci defaruwaat euh, monsieur Ndiaye. waaw APR. Mhm. yaakaar naa fi ne nii pare na. Mhm. parce que parti parti au pouvoir moo demee noonu. Mhm. soo daanoo rek da ngay daanuwaale ak. garab gi yëppay dem reen yeeg bànqaas yeeg yëppay dem. en fekk si nag APR si boppam moom avant muy daanu déjà dafa tasoon. comme ni ñu koy waxee benn constance moo fa amoon muy Macky Sall benn instant mu dem ba presque talatu leen xamatul fu mu jëm parti bi jaxasoo xamuñ kuy taxaw xamuñ ku ñuy teg ñoom ñëpp ñuy xeexoo seen biir di réeroo seen biir donc avant élection avant ñuy daanu ñoom tas nañ ñu amatuñu dara si dëkk bi taxawatuñ fan amuñ fan foo xam ne di nga wax ñu ne la mhm. leaderu APR tal moom moom et que c'est amatuloon donc euh, ñu boole si nag euh, dóor bu métti bi leen duma ñu normé lu complètement mhm. donc fi mu ne nii li fa desoon mooy ñu mënoon a am benn bloc ñoom ñëpp daje. am benn force au moins ñu jéem xool naka lañuy def ba sauver parti bi. Mhm. Euh, génnaat si dem opposé wu. Mhm. et ce sera très difficile dans la mesure où déggoowuñu seen biir. kenn yéenewul sa morom nga nekk ci kanam. kon fi ne nii moom bu ñu gën leen a séntu ci tasaaroo tas. ñu uti beneen parti bu taxaw. voilà merci beaucoup monsieur Ndiaye foofu la ñu jaaree jàll ci suñu dernière partie émission euh, ne la l'invité de la rédaction tey ñu dalal euh, comme ni ñu ko waxee léegi monsieur Mansour Ndiaye di secrétaire général de la CDEPS sur les examens gis nañu nag examen bag bi bëri na euh, li nga xam ne moom lañ ci dégg ci ay perturbations yoo xam ne am na ci. Euh, notamment fële ca diwaanu Kaolack di 64 euh, candidats yoo xam dañ leen exclure ngir euh, ndax dañoo yore woon li nga xam moom mooy seen téléphone portable doyen xanaa ma bàyyi la ak monsieur Ndiaye yow ak Ibrahima. waaw monsieur Ndiaye ñu tudd Mansour Ndiaye. mu mhm. benn syndicat. syndicat bi nag mooy CEDEPS. coordination démocratique des enseignants et formateurs du Sénégal. moom mooy secrétaire général waaw habilité na pour mën a wax ci examen yi. Mhm. monsieur Ndiaye léegi question bu njëkk bi rek mooy ban lecture nga am ci li fi jot a xew bërki dem mhm. ci diggante nouveau lycée boobu. yi ñu exclure parce que ay téléphone yu ñu nekk seen bés. waaw waaw waaw euh, merci beaucoup. Euh, Kaolack la fa xew mooy ci bac bi. Mhm. perturbation yooyu doon na vraiment lu xaw a ñuulal soow mi tuuti quoi si bac bi. Euh, muy affaire boo xamante ne kenn séntuwu ko woon euh, nga mën si jàngat nag ñaari mbir. Mhm. bu njëkk mooy lépp luy mun di xew aussi il ñu xam ne Sénégal aussi dañuy bëgg dara on peut pas vouloir une chose contraire ou bien dañu ne dañu bëgg a. léegi réew mi lépp ñu teg ko ci raay na mhm. ñëpp di jub di jubal ñuy jubbanti mhm. à partir de ce moment nag loolu day am conséquence cest boo wàccee yoon rek il faut ñu xamal la ne kat ah lii mooy yoon tegaat la ci kaw raay bi kon soo wàccee dinañ la sanctionner mhm. dans la u waxoon nañ ne téléphone moom bu ko kenn indi si centre d'examen di ko di def communiquer di ko tasaare nit ñi di ko dégg ñu daanul candidat sax di yëg ne téléphone kenn waru ko yóbbu ci centre bi te du la première fois ñu mm-hmm. def ko ñu aaye ko mais ren lañ ci gën a vraiment communiqué mm-hmm. pour aaye téléphone yi completement parce que day permettre muy am ay ay tricherie ay ay ay ay même fuite yi daan am sax daan jaar si mm-hmm. téléphone yi donc ñu ne bu ko kenn indeeti si centre bi moo koy régler parce que boo ko indee si centre bi mun nga ko fay sax génn si sa si sa salle ne da ngay dem toilette. fexe ba ànd ak moom. dugg ak moom ci biir toilette yi def li ngay def fayaat génn ñëw te kenn du ko xam donc ñu ne kon solution bi mooy bu ko kenn indi léegi nag ñi yëg loolu parce que dañ la ko wax. Mhm. ba pare seen convocation ñu bind ko ci. Mhm. envoyé leen convocation bi par message électronique d'abord ensuite physique. Mhm. jox leen convocation bi wax leen ne bu ñu indi téléphone. ci ci ci ci centre d'examen à partir de ce moment nag ku ko indi il faut nga xaar sanction mhm. ñi ko indi nag bari ñu ñëw ba ci centre bi plus de 64 candidats si saa si ñu génne seen téléphone ci saag yi mhm. alors proviseur bi assumer responsabilité am euh, dal di jël téléphone yi mais comme dañ ko aaye woon yéen indi ngeen ko nañ leen dàq duñ def examen yi mhm. ñu dàq leen ñu dem ñibbi léegi nag mesure bi beneen point bi mooy xaw na diis tuuti. parce mhm. que même comme candidat lañ jàng nañ ba terminal ak bac ni mu diiseeg fi koy doomu aadama bi di teg. donc suñu ñëwee comme c'est une première ba loolu am je pense que tey amuñu woon mun nañ ne peut-être amuñu woon intention. tricher wala sàcc parce que bu ñu ko mhm. amoon suñuy laaj ku am téléphone. du ñu ne ñoom am nañ téléphone. effectivement ensuite su fekkonte ne ñu ngi ak téléphone aussi duñ ko fay. duñ ko fay def ko seen saak dañ ko fay dugal ko seen biir saak. Mhm. donc nga jàpp ne xëy na. mun na am jotuñu message bi ñu waroon jot complètement parce que ya a y' a un hiatus entre maintenant le fait que nga communiqué ak réception bi si nit di am. te soo seetloo 64 candidats yooyu ëpp doole gi yëpp ay arabisants la. disent que est des arabisants donc maitriser wuñ langue française bi benn maitrise bu leen di permettre suñ ko liiree toutes les informations utiles ñu jël ko. donc xëy na am na yu ñuy jàpp yu mel ni centre bi ñu leen affecté yu mel ni euh, heure bi ñuy commencé examen yi et cetera. yooyu mun nañ ko jàpp mais mun nañ bañ a xam est-ce que dañ leen di aaye carrément usage téléphone bi. Mhm. wala indi téléphone bi ci centre bi. donc mu xam loolu mun nit mun na ko jaawaatle aussi mhm. jaawaatle est-ce que dama ko war a indi mais du ko utiliser dama koy fay bàyyi sama sac bu ma génnee centre bi génnewaat sama téléphone taal liggéey li may mhm. liggéey loolu mun na nekk comme possibilité boobu am na bi ñu leen jàppee je pense que Euh, problème de management am na c'est-à-dire le leader bi nga xamante ne mooy jiite centre bi président centre bi je pense que waroon na mun a récupérer tous les téléphones bàyyi leen ñoom ñu mm-hmm. def seen examen maintenant après les examens mu woo leen euh, tout en faisant le tour de toutes les salles ñëpp xam ne lii c'est pas normal déli la li ñu ko def dañ leen waroon sax daq ñu génn centre bi et mm-hmm. et bu ko kenn defati may ñu ko kenn ba examen yi jeex ko kenn defati yéen ñëpp képp ku si am téléphone génne ko ñu ko si fekkee di nga pare nga sa hmm. carrière pare na et cetera tu donnes un avertissement verbal récupère téléphone yi bàyyi leen ñu defi seen hmm. examen hmm. maintenant après examen yi nga continuer communication bi parce que communication du doy ñoom mun nañ ne communiquer nañ joxe nañ convocation mais arabisant bi la ne moi je maîtrise pas la langue te dañ ma ko jox ci en français te man arabe arabe mooy sama sama sama langue principale donc kooku mënoo ci dara mënoo mmh. tëb rek blâmer ko ci lu mel noonu mmh. blâme bu méchant méchante boobu boo xamante ne dañ ko aaye complètement examen yi ne ko ren doo def examen mmh. donc loolu vraiment c'est très dur foofu rek laa bëggoon vraiment ñu xam ne ñaari poñ yooyu moo ci ne benn bi mooy def na lu mu waroon parce que jéem nañ leen teg si yoon beneen bi mooy aussi vraiment c' est très sévère trop même. Mm. parce que mënoon nañ leen a yar neneen avertir leen avertissement verbal. ba pare nag ñoom it aussi ñu yokk li autorités yi war a def pour beneen bac. Euh, c' est à dire candidats yi yëpp nañu xam ne lii ñu def jaadu ñu def jaarale message bi ci centre yëpp ñi nga xamante ne defuñu examen aussi ñu ngi def première déwén ñu war a def bac ak ñi nga xam ñu ngi seen ginnaaw ñoom ñëpp. ñu xam c' ñu yokkaat. Mm-hmm. communiqué bi jaarale si école yi yëpp wax li yi ñu leen di jàngal ci classe yi yëpp ñu former leen informer leen par rapport à ça ba nga xamante ne mm-hmm. kenn si ñoom du xalaata ci yóbbu centre euh, téléphone à mm-hmm. partir de ce moment maintenant déwén euh, ñi koy indiwaat fekk on est sûr que ñëpp xam nañ li xew ñi koy indiwaat nga xam ne ñi intention bi baaxul nga mun a sanctionner voilà Ibrahima Mhm. Aïcha mais monsieur Mbaye euh, est-ce que euh, esprit de sensibilisation yi nga xamante ne moom mécanisme de sensibilisation yi nga xamante ne moom lañ teg tey. Mhm. pour permettre élève bi mu mën a xam lépp luñ koy tere balaa dem si ba jour baccalauréat est-ce que tey loolu doy na est-ce que du jotul ñu renforcer ko wala ñu indi yeneen mécanisme yu mhm. bees yu permettre élève bi ni ñuy defee. ay ay ay ay ay journée de philosophie. di mhm. waxtaan ak ñoom ci wàllu que jotul ñu koy def pour sensibiliser leen xam ban comportement lañ war a am bu ñu àggee ci euh, ci centre bi ak lañ fa war a yóbbu ak lañ fa war a parce que bu ñu jëlee exemple ci euh, ci ñun comme suñu genre yi bi ñuy def examen sax suñuy téléphone mi woon suñu ay centre donc euh, te moment boobu. loi bi terewoon nañ ko parce que depuis 2012 mhm. lañ ko créé. Mhm. donc est-ce que lan lañ mën a proposer tey pour que xale yi mën a xam ne. lii moo leen di permettre lii la ñu war a def bu ñu àggee ci jour examen. de tout à fait tout à fait moom laa wax ne il faut ñu renforcer maintenant communication bi ak information bi foog ñu renforcer ko. léegi yaa maintenant euh, possibilité yi bari na méthodes yi bari na nooy def ba nga xamante ne balaa déwén ñëpp xam li xew. il faut il faut multiplier et varier les supports ba nga xamante ne ñëpp dinañ jot information kenn du mënati taxaw Sénégal nga ne ma information bi. Mhm. y a y la rajo. y a les par exemple mun nga jël un mois avant examen yi télévision yi. yi am si yëpp képp si def journal balaa ngaa def journal nga jàllal leen ñu phase bi ils l'ont fait avec Covid 19 bi. Euh, bi ñu ko defee ba fépp foo nekk Sénégal di nga xam li Covid di nga xam ni ñuy jëlee masque di nga xam na nga mais bag bi aussi c'est aussi essentiel que ça. Mhm. donc euh, mun nañu renforcer communication bi ak formation bi ba nga xamante ne fépp bu candidat nekk dootoo xelaatati def lu mel nii. même biir centre bi bu ñuy dugg am na war na mun a am ay micro nangam ñu jël wax euh, rappeler 7 heures ah mbaa yoru leen téléphone kenn yor fi téléphone. képp ku mhm. yor téléphone bu dugg saal. mu jàll ci saal yi fépp ñëpp di ko dégg ku yor téléphone bul dugg ak moom saal génnal centre bi nga yóbbu ko mhm. génne ko centre bi ba ba examen bi jeex nga dem jëli sa téléphone même soo leen koy dénkaane ji sa boutique yee sa tali ba sax bu la bet mhm. mais bu mu dugg si biir centre bi mhm. génn leen képp ku yorul téléphone bu ñu fekk benn saal si téléphone on va fouiller après les sacs sac bu ñu fekk téléphone wala dara dinañ dàq borom tu tu fais passer le message donc am na bëri na ay possibilités waa ji mm-hmm. bi ñu ko laajee dana je ne fais qu'appliquer la moom foofu mm-hmm. mais boo nekkee manager mm-hmm. ñu dénk la lu mel ni examen situation bi danga koy gérer avec sérénité yow nga ñëw nga xool nga boy seen sac danga leen laaj ñu ne leen ñu ngi seen sac foofu amatul danger. Mm-hmm. Mm-hmm. mais jëlal saa yi nga seet benn salle dugal ko fa. Mm-hmm. ñu def seen examen bu ñu paree nga leen suba nag bu mu dugg ci école am na yow boo nekkee kii da ngay jël ce qu'on appelle da ngay anticiper. def jël ay mesures conservatoires. tout à mais dafa am ñoo xam ne bu situation ba dañuy. affronter ils sont radicaux kii kii du seul. bu am na dans certaines écoles fii man sama loolu bi mu doon def bac ñoom dañ de ci porte bi la ñuy taxaw benn sac du dugg képp nag ku du ku lijjanti ba dugal sa portable bi ci dañuy vérifier am na ñu taxaw ci porte bi ñu vérifier ku ku dugal ñu xam ne kii dafa am intention tricher mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu dóor ko bu baax tout à fait comprendre nga loolu mooy manager da fekk ay situation yoo xam ne loi bi lii la wax mais loi bi def fois da nga koy seet noo koy contourner. Mhm. ba régler sa problème. Mhm. am na benn commissaire de police temps bu Covid bi ay maire lañ ko dajaleel dugal leen ci fourgonnette bi indi. Mhm. bi mu ñëwee mu woo waa yi indi kii bi ne ko mais ñii lan lañ fi def soxna yéen lan ngeen ñu ne ko ñun dañoo jàpp. mu ne ko lu tax ñu jàpp nee ñu ñu dañoo dox dañoo dox après heure bi couvre-feu bi waaw dañu waroon nekk suñu kër loolu tax ñu jàpp ñu mu ne mais lu tax ngeen di dox booy ñu jàpp leen mu ne ko ñun dañ demoon ngénte doon xaar ku ñu yiwi xaalis boobu ci lañuy jox suñu doom suuba pour mu ñu dem jàngi <laughs> ensuite ci la ñuy dépense mu ñu ko bàyyi foofu nag <laughs> commissaire bi ne waa ji kaay mu ñëw mu ne ko jëlal fourgonnette bi bu dugal leen ci biir seen kër yi ku nekk nga yóbbu ko xam nga koy. loolu daal la situation mais d'une manière intelligente. Mm. loolu loolu la loolu foofu la ñuy xaaree mm. leader. Mm. et aussi il faudrait Mansour. qu'on fasse un peu d'enquête de moralité par rapport à ceux qui gèrent les examens. exactement. am na ñoo xam ne seen école. kenn nawu leen fa par leur comportement. xam mm-hmm. nga mais parce que ñoo fa gën a gradé. ñu jël leen teg leen président du jury mm-hmm. Mm-hmm. mais yooyu war nañ koy xool mm-hmm. koo xam ne boo ko kiiwee mu tiir jaxasoo xamul ma te examen c'est très sérieux c'est influe sur la vie des gens xool bu ñu la jàppee exclure la condamné la pour quatre ans yoo xam ne dootoo mën a def quatre ans c'est quatre ans de salaire parce que plus nga teel a dugg dans la vie active plus tu as de l'argent c'est quatre ans de salaire ensuite traumatisme psychologique bi mu nar a causé ñooñu ñooñu ñëpp pour nga defar examen jàll dina jafe te parmi ces gens-là il y avait certainement des gens qui pouvaient avoir la motion war dem jàngi bitim réew tout ça donc ça veut dire que boo nekkee responsable non il ne faut pas aller trop vite en besogne ah, même bu la loi bi waxee leen yaa koy contourner mm-hmm. il benn centre d'examen boobu dañu dañu waroon joxe épreuve telle épreuve ko par exemple ñu waroon joxe dictée mu juum présent jury bi génn kii mais bi mu waxee gars yi ne xam na ko gaay yi wax ñu ko tëjal centre bu kenn génn ñu kon ne li ñuy def après réglé ko. <laughs> mais réglé nañ ko te coow jubul gis nga buñ ko amatoon xam nga ban conséquence lay am. au niveau national hmm. on nale changer épreuve yëpp mhm. Mhm. donc yooyu yëpp ay conséquences la donc mhm. nit ki bu la joxee responsabilité boo jaaxle tu concertes rapidement yi nga nekk am na ñoo xam ne ñoo la fa ëpp expérience ainsi de suite mais mais loolu la ñu nga appliquer loi mais le lois elles sont faites pour être humanisées. loi nit ñee ko tax a jóg. léegi nag yow da xool loo xam ne bu dee amul danger amul benn enfreinte. oui bañ nañ ko ba wax nañ la ñoom ñoom moom sax seen portable la ci biir ça ñii nëbbante wuñ nëbbuñu. te fay waaw jàpp nañ te gis nga monde bi léegi dafa toll foo xam ne chaque fois da ngay soxla portable. Mm-hmm. da ngay jàngi wàcc man sama doom suy def examen dama dama koy bëgg a gis wala même bu ma mënul ñëw dinaa fexe nu ma. communiquer ak moom. Mhm. ainsi de suite am nañu seen doom feebar sax waaw nit ki aussi mën na donc est-ce que est-ce que est-ce que tere portable bi loolu laa doon wax keroog euh, fii nii si émission bi est-ce que léegi ci ère bi ñu toll warati nañ tere ay téléphone portable ci ci ay centre d'examen. Mhm. li ñu war a def daal mooy. foofu benn centre boo xam ne mhm. dañ koy kii fii ak ñuy ñuy proposer à la surveillance foofu. saag yi ku ñëw ñu kii bàyyi fa sa téléphone téléphone def si sa sa sur tes casiers et tout ça. Ah, ñu ah, enregistré ko nga am at nga dem sa classe. mais monsieur Mbaye est-ce que mm-hmm. tey xale yooyu ñu exclure 64 candidats amul benn sens bu ñu leen mën a may ci jëm ci section rattrapage. voilà lan mooy seen avenir office de bac pour ñu def ci benn liggéey boo xam ne dinañ leen permettre ñu mën a def section rattrapage octobre pour mën a def seen examen. waaw c'est certainement possible parce que dès l'instant que ñu ne monsieur Ndiaye pas monsieur Mbaye ah, monsieur Ndiaye <laughs> ah, ah, merci donc dès l'instant que ñu ñu ñu ñu ñu dàq leen rek donc après dañ leen di yóbbu commission disciplinaire y a une commission disciplinaire ñoom ñooy xool nag euh, statuer xool exactement gravité fait yi par rapport ak texte et tout ça ñu xool qu'est-ce qu'on peut faire mm-hmm. su fekkente ne dañ leen di may ñu reprendre par exemple session octobre session de remplacement yi ñu dem defi ko octobre par exemple def seen bac su fekkee gis nañ ne c'est c'est trop grave et cetera et que voilà duñ def bac dañ leen di bàyyi ñu dem ba déwén et cetera wala dañ leen di dàq deux ans nangam cinq ans ñoo xam léegi sa c'est la commission disciplinaire mais de toute façon daal li leer ba leer mooy munoon nañ bañ a yegg foofu dans la mesure où même texte yi dafa am jurisprudence waxuñ kenn ne waxuñ kenn ne la téléphone bu ñëw si centre bi dañuy dàq borom dañ lay dàq ci examen yi doo def examen amul amul fi ñu ko bind ci texte yi a interdit Euh, l'usage du du du téléphone portable. loolu c'est une interdiction ko de manière interdite léegi donc waroon nañ ko mun a gérer. sur ce plan la am na une lueur d'espoir. parce que démb j'ai le ministre de l'enseignement supérieur. <laughs> Abdourahmane Diouf muy wax ne les élèves exclus waxul ci ñi waxul sax ci ñi kese mais mhm. ñi nga xam ne xam nga dafa am ñoo xam ne dañoo dem ba terminal am problème papier papier. Mhm. léegi noonu ñooñu il on permet de se réinscrire. Mhm. pour pour ah. waaw fan yi pour mën a def donc ça veut dire que comme que mhm. ñooñu la ñu permettre ñu mën. donc certainement ñu ne dina leen ci laawa mhm. laawaale. parce que wax dëgg yàlla boo xoolee objectivement. rien ne milité. zèle bi c'est un zèle mal contenu quoi zèle bi moo ëpp ko jàmbaar la nag dafa bëggoon appliquer ay lois mais les lois elles sont faites pour les hommes. on les humanise. tout cela allez merci beaucoup waaw xanaa di leen gërëm d'abord di leen sant uh, waa vraiment Evidence TV mm-hmm. ci invitation bi nga mm-hmm. xamante ne dinañu permettre si période bi ñu wax ak euh, euh, population bi par rapport ak examen yi nga mm-hmm. xamante ne mbirum jàng ak jàngale la te te ñu siy yëngu kon di leen si jërëjëfal di leen gërëm di leen sant ba pare dina encouragé aussi ci liggéey bi. parce que am mhm. benn affaire xam naa. d' accord d' accord doyen parce que décisionnaire yi. Ah. Mhm. sëñ kooku problème boobu du war nañ ci taxaw. waaw waaw waaw mu problème bu metti jooytu nañ ko ba sonn depuis régime bi génn. Mhm. ñu koy jooy ba nga xamante ne dañ koy ne signé nañ ko ministre bi si boppam ne siñee na arrêté bi yóbbu na ko euh, projet bi dem na mu ngi si taabalu président Macky Sall. Mhm. on est resté là pendant plus d'un an di xaar di xaar ko si si table. te voilà muy muy problème bu jafe bu métti boo xamante ne li ko waral lépp mooy euh, décisionnaire da ngay génn ñu ne la sa at dafa xaw a ëpp par rapport ak fi ñu la war a dugalee fonctionnaire. Mhm. li koy waral bari na. mun nga euh, kii génn am BFM ne man damay jàngale ji teel a xam fu mu jëm dem jàngale ji ñëw après balaa ngaa am vingt cinq ans sax euh, vingt deux ans vingt trois ans vingt et un ans vingt ans dugg nga fonction publique. Mm-hmm. parce que da nga teel a dem jàngale ji. nekk fonction publique mun nga fa def quarante ans di liggéey après di jàng di continuer. am ñu dem ba am bac euh, vingt ans et cetera ñu commencé lijjanti fexe dem jàngale ji balaa ñuy am trente ans. ñu dem jàngale ci commencé commencé liggéey nekk nekk duñ nekk décisionnaire nekk fonctionnaire mm-hmm. am ñoo nga xamante ne dañ dem ba université du jàng seen jàng ba après la licence wala dara li ñu bëggoon amuñu ko wala après la maîtrise après ñu retourné waat dugg si secteur enseignement le temps boobu ñuy ñëw ba am parce que pour ñu dugal la fonction publique il faut un diplôme professionnel pas diplôme académique mm-hmm. léegi da ngay demaat si terrain bi liggéey deux ans trois ans le temps nga am diplôme mm-hmm. soog a ñëwaat diggante bi nag am na ñoo xam ne balaa ñuy ñëw seen 30 ans weesu woon dans dans le temps léegi 35 ans la am na ñoo xam ne balaa ñuy ñëw seen 35 ans mat euh, jour pour jour léegi bu bu ëppee benn fan wala dara ñu ne la yow décisionnaire nga mënoo nekk fonctionnaire. Mm-hmm. donc ñu dugal la décisionnaire donc loolu mooy différence bi à part ça ñoo ñoo yem yëpp ñoo bokk lu ñuy heure bu ñuy xëy ñoo bokk lu ñuy liggéey ñoo yem diplôme des fois sax décisionnaire bi mooy ëpp ki nga xam ne du décisionnaire. ci métier bi nga xamante ne même métier la ñoo koy def moo koy dàq métier bi moo koy gën a gratter mais du mun avancer kii parce que doo décisionnaire yow yaa ngi avancer correctement kii parce que décisionnaire la ñu ne la foog ñu régler problème mu yi euh, kii bi dañ koy dañ koy defal projet de loi projet de loi bi foog mu yegg ci président pour mu signer ko après mu nekk si circuit nga toog di xaar huit ans six ans sept ans huit ans yaa ngi ak sa diplôme ak yëpp mënuñ la ko defal pour sa salaire yokk pour nga avancer de ñu ne la léegi soo retraité si statut boobu léegi ki nga xam ne fonctionnaire la mun na la fay cinq fois plus da ngay retraité yow sa sa salaire toll si soixante mille soixante cinq mille soixante cinq mille sa doom yaa ngi jàng commencé guñ liggéey yaa ngi fay location des fois yaa ngi fay courant yaa ngi fay lépp ñu ne la soixante cinq mille mooy sa salaire nooy def tout simplement parce que t'étais décisionnaire léegi euh, au même moment nga am yeneen collègues yi nga doon liggéeyandool nga xam yaa leen sax gënoon gradé parce qu'ils sont fonctionnaires ñu retraités ils ont des salaires de quatre cent mille francs wala trois cent mille et di di di seen soxla donc muy différence bu métti bu ngande boo xamante ne bi ñoom ñu koy dund di ko jooytu ba pare li si gën a métti mooy xaar bi yàgg deux ans ñu ngi xaar euh, projet de décret boobu pour ñu rectifier ko te biir xaar bi chaque jour am ñu retraité fi may wax ak yow ni tey am na décisionnaire yoo xam ne tey tey la ñu retraité am ñoo xam ne démb la ñu retraité am ñoo xam ne suba la retraité donc bi ñu ko commencé di xaar léegi li retraité si décisionnaire kenn xamul nu mu yem chaque jour nag paa yi maire yi ñu ngi jooy di la woo est-ce que man sax dinaa fekkee yëf yi man de ren lay jeexal man daa man de six mois ma dese man trois mois ma dese est-ce que bu ñu koy defar dinaa ko fekkee est-ce que naa si bokk est donc si cause boobu ñu nekk ba pare di jàngale comme seen morom yi dafa métti euh, en plus loolu amatul fan ci àdduna bi fi mu ne nii àdduna bi yëpp dañuy uniformiser statut yi. kon ñun war nañ toll foo xamante ne euh, war nañ jéem a uniformiser suñu statut ba nga xamante ne à salaire à travail égal salaire égal bu fekkante ne ñoo yemale diplôme ñoo bokk lu ñuy lu ñuy lu ñuy liggéey. Mm-hmm. donc ñu ngi si doon xaar vraiment les nouvelles autorité comme yi ñu njëkk yi të nañ ñu wax nañ jooy nañ ba sonn dem nañ euh, c'est la priorité des priorités parce que vraiment dafa métti te nit ñaa ngi koy te mm-hmm. bari nañ nag ci système bi. bu fekkoon ay benn nit fukki nit téeméeri nit cent mais y' a beaucoup de ñoo xamante ne dañuy frappé par problème mu âge yi. Mm. ba ba ba nekk décisionnaire. Mm. voilà merci beaucoup euh, monsieur Ndiaye yaa ngi doon tàggoo. waaw waaw di leen remercier vraiment ci invitation bi. Mm. Euh, di leen ñaanal yàlla seen. liggéey gën a jëm kanam ngeen dem ba Evidence TV bokk ci télé yi gën a mag si Sénégal am yàlla ubbi leen euh, wërsëg bi euh, ndax vraiment li ngeen di def liggéey bu rafet la euh, bu am solo boo xamante ne bii ñaan nañu yàlla mu jëm kanam ba Sénégal yëpp jot àdduna bi yëpp jot si amiin merci beaucoup monsieur Ndiaye ñu lay remercier bu baax comme ni ñu wax ci disponibilité bi ak intervention bi man nag li may wax rek moom mooy en tant que professeur ah, ngeen jàllaleel xam ne ñoom ñooy corriger copie xale yi ñu dawal clémence di corriger normalement ñi nga xam ne mooy copie yi aussi loolu c'est important parce que parfois mën nga jàng ba ba ba pare def sa examen ba pare nga ñëw correction xañ la sa examen loolu gis nañ ko fi aussi euh, ñu ñu ñu dawal di corriger normalement li nga xam ne moom mooy copie loolu aussi c'est important. waaw yooyu yëpp aussi dafa mm-hmm. laaj si waxtaan yi ñu mm-hmm. war a réformer système bi. Mm-hmm. Euh, ñu ngi xaar autorité yi aussi parce que loolu dafa am lu ko waral. Euh, nit nit la rek ah, Ziguinchor pour nga dem liggéey wala nangam. Mm. Euh, nga ñëw di corriger. ngay mm. jógee ko déplacé wu des kilomètres et des kilomètres. nga yegg si ñu jox la lu mat centre bi yëpp 400 copies. wala 500 copies ba pare. Euh, proviseur bi la mm-hmm. waaw affaire ñun rek ñoo fi des il faut résultat yi dafa war a génn jaaw. Mm. il faut nga jàpp si booy taxaw si même sooy fanaan a corriger di nga ko def mais il faut que demain ñu ma jot affaire yi nga bugg a topp guddi gi di di corriger lépp. balaabatiser peut-être avec les les sciences exactes sax xëy na mën na ne. mathématiques yi euh, SVT et cetera da ngay xool trouve trouve pas mais boo ñëwee ci. littérature beeg mhm. benn introduction rek pour nga corriger ko tu prends du temps. Mhm. conclusion bi même chose. même booy liir introduction lire conclusion dóor benn note sax temps bi mu lay jëlal pour nga. corriger si ay quatre copies. tu ne mhm. peux pas le faire suba pour déposer ko yaa ngi soog yegg sax. donc yooyu yëpp da ciy de sorte que finalement dañuy da nelaw sax di corriger di doori noonu. Mhm. Euh, il faut ñu la ko quoi. voilà merci beaucoup doyen euh, lan ngay tàggoog mbokk internet yi. wax rafetlu waxtaan bi. Mhm. am na solo parce que am réew aussi jàng da cee am mhm. solo. surtout lu mel ni examen yooyu dañuy fexe daal ba gën koo organiser. et puis ñi ñuy dénk mbir yi ñu ànd ak sérénité ànd ak dal parce que responsabilité moo demee noonu. responsabilité moom du lu yomb. Mhm. mais boo ci ànd ak dal rek suñu borom mën na la dimbali rek. Mhm. Mhm. merci beaucoup doyen à demain incha allah. ok waaw bu suba. incha allah merci beaucoup Ibrahima à demain. bu suba incha allah Ramatoulaye di la jaajëfal d'abord ak monsieur Ndiaye aussi ñu koy wax merci ci invitation disponibilité bi di ko jox dig daje xaj na beneen ñoom dina ñëwaat gën a yaatal ci sujet yi parce que am na solo. di wax jërëjëf aussi à doyen ci euh, ci chronique mm. ba suba ak jàmm ak ñi nga xam euh, euh, votre émission Bët Set sur l'Evidence TV seen premier rendez d'information comme ni ma leen koy waxee ma jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñoo fare woon ci régie bi di monsieur X ak Massamba di remercier également Rachida ci maquillage bi Fatou ak René ñi nekkoon ci caméra bi di leen remercier yéen mbokkante not yi nga xam ne yéen a toggoon euh, di ñu seetaan di jox dig daje suba incha allah ci biir l'évidence TV émission bët set comme ni ma leen ko waxee nag l' information continue à 13h di ngeen am li nga xam ni moom mooy euh, seen flash d' en wolof ak en français ngeen ci ànd ak Ibrahima fay ak euh, man ma leen di jaajëfal à demain incha allah très bon journée à vous.